Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa grup mbokki groupe Sakko Xam Sa dina ñu ngi leen di nuyu yeen ñep di leen siar di leen ñaanal jamm di sakku ci yeen ngeen ñaanal jamm Eh, di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu boole ñu ñun ak yeen defal ñu jamm eh xamna xaw na fe geej sax moy sunu cheikh sunu oustaz cheikh Mahamadul Amin Eh, ci téere bi nga xam ne mu ngi ko doon jàngalante ak ñun ci groupe bii di ko Xam Sa Diine mu daan fi jaar àllarba bu jot waaye comme ni ngeen ko xamee te ñu mosoon leen koy wax laa sak ku ko xam xam ne yitte mooy jàng ak jàngale waaye nag yitte yi dañoo bari te it doomu aadama yi léeg-léeg mu fu fàtte comme ñun itam nim ñuy dalee rek léeg-léeg sax bis bi ñëw ba paase ñu doog ko fàttaliku waaye ànd ak loolu yëpp tey incha allah ñu ngi am yaakaar ne bu ko yàlla defalee tawféex dina jàllale darsu bi mu doon téere benn ci téere yi nga xam ne seex naa docteur taalif na ko te muy téere bu am solo nag boo xamante ni déggoon naa pap Atoumane Samb di wax ne téere boobu bu leeree ci sa bopp turuux yi yëpp lenn du nekk fu mu cosaanoo dana leer ci sa bopp te itam. dana la dimbale nga comprendre yu bëree baree baree bëri kon nag ah bu nu amee ku ñu ci mën a laayee biir di ñuy leeralal masa masala yooyu nga xamante ni lenn ci ay kuréel jël nañu yenn aay ak yenn hadis taawile ko taawil bu dëng boo xamante ni cànkote moo jur cànkote gi am ak réer gi am lépp wala bokk na ci li ko jur loolu boo amee ku lay génnee ci lën subuhat yooyu di la leeralal lënt lënt yooyu ñu mën a ñu waroon a mën a teg ci sa bopp wala dugal ko ci sa nopp ba nga jaxase la boo amee ku la ko leeralal ye doo def loo mooy rek santu ko sante ko yàlla kon seex bi incha allah dana koy dalal jàmm e, heure bu ko ko temps mayee rek mun na dugal dars bi wala bu fekkee da koy enregistré direct mun na ko def direct incha allah ñu ngi ñaan borom bi tabaaraka wa mu defal ko jàmm bu baax a baax a baax te nangul ko ay jëfam yu baax eh, boole ñu ñun ñëpp may ñu noppi dégg te bu ñu déggee yal na yàlla yombalal ñu jëf te bu ñu jëfee yàlla na buur bi tabaaraka wa taala nangu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xayaakumullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa nabina muhammad wa ala alihi wa mbokk yi nga xamante ne yéen ñu topp ci kippaango gi ñu ngi leen nuyu leen ziar di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko kon ñu dellu si waat ak yéen seen jotaay ñu daan amal ci daara ji ci téere solo boobu ak docteur Mouhamed Ahmad Lo Taalif xafidahullah muy jinaayat tawil fasid ala al aqidat al islamia muy njombe gi nekk ci piri mu bon bi nga xamante ni tey ay doomu aadama porté nañ ko jëmale ko ci pas-pasul islam yàlla nañ yàlla musal ci topp bànneex kon ñu ngi war a tàmbale tey ci page numéro trente muy almabxas thalith fi maxaatiri tawil fasid tey mi ngi wax kon ci danger yi nekk ci prix mu bon ak njombe yi ci nekk yàlla nañ ci yàlla musal mu ne fii xamsat matalib da koo tënk nag ci juróomi poñ poñ bu njëkk mu ne ann tawil alfasida yunaqidu al imana bi axbaari rasul sallallahu alayhi wa sallam prix mu bon ki ko porté parce que pour ñu leeral foofu laalu laata ñu ñëw pour mu gën a leer firi mu bon mooy par exemple loo xamante ni alquran karim bu leer naññ la bi lisaanin arabiyin mubin yàlla mu ni bal yadaahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha yàlla saxalal na boppam ne am na ñaari loxo ki nga xamante ne moo porté firi mu bon ñëw ni déedéet namuñ ci ñaari loxo liñ ci nam mooy xéewal liñ ci nam mooy kàttan loolu laa chaque wax dëgg yàlla ku dégg arab nek arab boo xamante ni pur la wala nga jàng ci arab xam ci dara di nga xam ne kooku la def tappaleeg ci axaan la parce que loolu amul lu ko tegtale ci charia motax mu ni ki nga xamanteni mo porter prime prix mu bon kooku dafa am contradiction ak gëm gi nga xamanteni ne moom la gëm li nga xamanteni moy yenen yonent assalam limu indi dina ñëw inshallah ci faram fàcc المطلب الثاني نيال البوينت مني فحوى هذا التأويل أن في نصوص الشرع ما ظاهر باطل أو كفر نعم بريم بون لمي وندو ما يكون تكسي الشرع داف تي ام لو خامتاني تي لي فين نين لا na am lan moo tax mu nekk neen parce que bu fekkoon ni nekkul neen ci moom ci làmmiñu ki nga xamante ni moom la moom lay wax ni docteur mooy ki nga xamante ni moo porte prix mu bon parce que bu fekkoon ni lu leer nañ ñi la kon du jar muy dugg di xuus ci loo xamante ni amu ci ndëslaay kon li muy wundu prix mu bon mooy kon dafa bëgg a wax ni kon ci teg charia am na ci loo xamante ni neen la wala lan kéefër la te wala iyaas billah loolu amut ñent ñetteelu poñ bi mu ni at tawil fasidu lazimuhu ittihamu shari bi kitmaani alxaq wa adamu nusul xalq firi mu bon hmm, njombeem wala li nga ciy déggee mooy tuumaal charia ni dafa nëbb dëgg parce que yàlla bu ñëwee ni bal yadaahu mabsuutaan mabsuutaan yunfiqu kayfa yashaa yàlla am na ñaari loxo arrahmaanu ala al yàlla ma nga yemoo ci kaw arsh yow nga ñëw ni namuñ ci lii lii lañ ci nam kon loolu tuumaal charia la ni dafa nëbb dëgg parce que lan moo tax ci langue arabe bi nga xaman ne dafa leer nañ arab yi namp ko alquran wàcc ci ñu wax leen ci loo xamante ni lu leer nañ la wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi li yubayina lahum yonent bu yàlla yónni ci làkk ba nit ña namp ci la lay yónni ñu ñëw indi leen quran ju leer wala téere bu leer nañ yow nga ñëw déet namuñ ci lii leen lañ ci nam kon loolu tumal sharia dafa nëbb dëgg wala iyadu billah wa adam nusul xalq nusul xalq ak tamit ñàkk laay biir conseil li nga xamante ni mooy mindee fi te loolu amut نعم ينتهي آه، البوين من ان التاويل الفاسد اعراض عن نصوص الوحي كما فهم السلف الصالح لوير موي بيري موبون تتلو لن لودول ني في نيوك تاكسي كوم نيكو السلف الصالح دي جيوون موتاخ لول بوين بوب رك دونغ دونغ بو فيكون ني ген نون سي دارس بي لودول نجارين لي رك دوينا سك موي فهم السلف الصالح ياغ نانتي واخ لو مانتا نياك لا سي دينا جي باسكو تاي كوم نين كاي واخي بيب بيداكات بيب بوكالكات بيب تابالكات بيب تيان بيب فوكات mën na ñëw indi texte alxuraan tegtali ko ci lu ko neex ñi <laughs> li lay tekki waaw mais loolu mu wax ni lay tekki liñ koy laaj mooy ndax salafu saalih noonu lañ ko déggee woon ñoo la gënoon dégg diine gën la xam diine gën la jege yonent bi alayhi salaam bal jàngee ci kippaaram moo tax mu ni firim bon firim bon wax dëgg yàlla ni fi ñukk texte yi la comme ni nga xamante ne la ko salaf saa déggee woon juróomeel poñ bi mu ni anna tawil fasid aslu kullu fi l islam bépp bidaa bu feeñ ci l'islam rek ah bépp bidaa li nga xamante moy ciosanam moy mooy prix mu bon yàlla nañ yàlla musal kon ñëw ci faram fàcce yi xam duñ mëna jël phrase par phrase parce que kon day gudd audio bi te bëgg nañ jéxal lépp li nga xamante moy juróom point yi ci teunk mais dañuy xol li nga xamante luñ mëna tek ci loxo nit ki la mu nekk ay mbir yo xamante yu palpable la xamante dina ci déggé li nga xamante moy ndariñ kon point bu njëkk mun an tawil al fasid yunaqidu al iman bi akhbar ar rasul sallallahu alayhi wasallam sallam wax nañ ko prix mu bon dafa am contradiction ak gëm gi nga xamante ne moom la ñu war a gëm li nga xamante ne mooy yonente bi li mu indi lu tax mu ne inna xaqiqata al iman bi risalati annabiyi sal allahu alih sallam tasdiquhu fi ma axbar وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأهل التأويل لم يسلموا له في شيء من ذلك بل تدخلوا بعقولهم وآرائهم في شؤونه التشريعية وحرفوا نصوصه الخبرية وعزلوها عن مدلولات الحقيقية بمجيخ muy ndox ibn taymiya neena li nga xamanteni moy deug deug gëm message yenen tibbi alayhi salam moy deugal ko ci lépp lu mu informé tayib yenen tibbi alayhi salam ñëw na informé ni par exemple yéen de di ngeen gis seen borom innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna alqamar laylat albadr sahwan laysa duna sahab yenen tibbi ëlëk di ngeen gis seen borom comme ni ngeen di gisee weer bi laylat albadr xamanteni moy bu fekke ni weer bi am na li nga xamante ne mooy fukki fan ak juróom jëm kaw xam day leer nañ yonent bi ne sa taraw na rabbakum di ngeen gis seen borom ahlu tawil buñ ñëwee ñoom dañ naan déedéet fii namuñ ci gis seen borom de luñ ci nam ñu ni gis sa yërmande borom wala gis nangam ak nangam loolu moo tax wax dëgg yàlla loolu dafa doy waar parce que yonent bi sam fekkee arab la wax dëgg yàlla ñamu jàkkaaloo nekk arab alquran ji wàcc ci arab bi lisaanin arabiyin bin yonent bi alayhi salaam ñëw ni di ngeen gis seen borom comme ni ngeen gisee weer bi mu nekk lu leer nañ ëllëg yawmal qiyaam julli ñi dañ gis seen borom wujuhun yawma idin naadira ila rabbiha naadira lilladina ahsanu alxusna wa ziyada ñi yàlla di fay ëllëg lu rafet ba dolli leen dolli dollantu googu yonente bi sallam moo ko tekkee ni ci xadis suhayb sax imaam muslim moo ko tekkee gis borom bi ñoom ñoo ñu ni déedéet namuñ ci gis borom bi kon loolu la chakkan dafa am contradiction ak gëm li yonente bi informé yonente bi li mu informé dañ ko war a gëm nam ko informé ñoom ñu ne déet namuñ ci loolu moo tax prix bon du doy waar la dafa am contradiction ak li nga xamante ne mooy gëm gi nit ki war a gëm li yonent bi salaam informé moo tax mu ni dëgg-dëgg gëm li nga xamante ni mooy message yonent bi salaam tasdiqu fi ma axbar mooy dëggal ko ci lim informé topp ko ci lim digle waaye dañ ba seet wicc ci li nga xamante ne daf koo tere mu ni ahlu tawil nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy def prime bon lam yusallimu lahu fi shay min dalik waaw ñoom jébbalu luñ ci li nga xamanteni ne assalam la informé bal tadakhalu li am kay moy dañoo jël seeni xel ak seeni gis-gis yo xamanteni yu manki la ci li nga xamanteni ne moom mooy mbiru sharia di def nak lu leen neex harrafu xarrafu nusuusal xabariya yonent lim informé ñom ñëw dat koy prim jox ko benen prim wa azaluha an madlulatiha al xaqiqiya fekk ci li nga xamanteni mal doon tegtale deug deug ñu jël ko fa dat koy solal benen mbub motax ibnu taymiya bimu waxe شين شين يوم احوال مؤوله دفني وهذا مناقض لما اوجبه الرسول من الايمان باخباره نيوم دي لي ديف دف ام كونتراديكسيون اك لو يونتي بي وارال تي ليغا خامتيني كي مو گم كو تي بو انفورمي دارا من وانه في الحقيقه عزل للرسول عن موجب رساله لول كون موي دانيو بيغ جيل يونتي بي دات كوي نيوكي جيل يونتي سان دات كوي ديندي seppi ko ci li nga xamante ne moom mooy risaale bi nga xamante ne moom la bëggoon jàngal parce que yéen yonent sam fekkee dafa ñëw comme ni ñu ko waxee mu nekk arab alxuraan wàcc arab bi lisaani arabin mubin mu jàngal leer nañ ñoom ñooñu dee namuñ ci loolu leen lañ ci nam la chaque ne kon mooy ñoom li ñu bëgg a wax rek dina ñëw wax dëgg yàlla mooy kon dañoo tuumaal sharia dina ñëw incha allah mu ne ibnu qayim tamit wax na lu mel noonu نعم من من أعظم آفات التأويل وجنايته أنه إذا سلط على أصول الإيمان والإسلام اجتثها وقلعها وذلك ان معقد هذه الاصول تصديق الرسول فيما اخبر وطاعه فيما امر دانك داي ريبيتي لي ابن تيميه وخون موني بوكو نا سي ليغا خامتيني موي نجومبي بريم بون اك دانجرم موي نيوم داني فيك ليغا خامتيني موي اصول الايمان اك الاسلام تشاني نغم يالا ليغا خامتيني موي الاسلام ñu leer koy seppi ba mu seet wicc sànni ko fële indi leneen loo xamante ni nag moom yàlla nañ ci yàlla musal moo tax mu jox exemple ni yonent bi sa wax ji wax ne innakum sa tarawna rabbakum iyaanan kama tarawna alqamar laylat albadri sahwan laysa duunahu sahab wa kama tarawna alchamsa fi aldahirati laysa duuna sahab yonent bi mu ni ëllëg di ngeen gis seen borom jahratan kenn mën ko gis ci àdduna loolu la chakal ak dëppoo la ci ahlu sunna wuuteeg tappalekat yeeg caaxaankat yeeg sufiyanke kay mais nee na comme ni ngeen di gisee weer bii nii mu nekk loo xamante ne lu leer nañ doo leen ci buuxante ñoom ahlu tawil من قال رحمه الله ها كان ما وخ رحمه الله مام ابن قيم لي تخلل من نينا فتاويل الرؤيه في هذا السياق بما يخالف حقيقتها والظاهرة في غاية الامتناع وهو رد وتكذيب تستر صاحبه بالتأويل حديث بي من جيب ديجي لين لول جيس سبرم نينا كون كينغ خام دفن يودادي فيري لينغ خام مو جيس كيس بي جين نكو جي كونتكس بي يوب بكو تي لين لو خام انت ووتي كيلي فين nee na loolu fil xaqiqa dëgg-dëgg boo ko xool en réalité mooy weddi la ak delloo bi nga xamante ne ki nga xamante ne moo def loolu daf ko daf ko porté yàlla ñu ci yàlla musal kon lii dafa nekk loo xamante ne lu leer nañ la kon poñ bu njëkk bi dañ ciy déggee ni kon ki nga xamante ne moo ñëw fekk ay texte yu leer nañ mu piri ko piri mu bon loolu dafa am contradiction ak gëm gi nga xamante ni ah dañ ko war a gëm li nga xamante ni yonent bi sallam moom lay informé ñaareel poñ bi فحوى هذا التأويل أن في نصوص الشرع ما ظاهر باطل أو كفر نعم ki nga xamante ne mooy piri piri mbon maam doxalinam li muy wund mooy sharia kon daf ci am ay textes yoo xamante ne wax dëgg yàlla neen la loolu mooy lan mu ne inna al mutaarida li tawili nusus sharia min gayri burhan min alshariati ذاتها سيء الظن بالله ورسوله وشرعه نانا كيغا خامتيني موم موي بورتي تاي ليغا خامتيني موي بري مو بون ci teg sharia yi te amu ci benn li nga xamante ne mooy lay nee na ko ku ñaaw njortu la ci yàlla subhanahu wa taala ku ñaaw njortu la ci yonent bi ku ñaaw njortu la ci sharia لتخ من حيث يزعم بمقاله أو بحاله أن الله سبحانه وتعالى أنزل على خلقه كتابا وخاطبهم رسوله صلى الله عليه وسلم بسنة في ألفاظهما ما يضلهم ظاهره ويوقع في الشبهة في التشبيه والتمثيل وغيرها من البلاء والضلالات والعياذ بالله بس كي خمن تاني تاي موي ووتي ليغا خمن تاني موي بيري مبون نينا دفا نيورتوني بروم بي سبحانه وتعالى فواتي moy alquran bu leer nañ yonent ay sa ñëw jàngale ko wa anzalna ilayka dhikra litubayyana tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim mais yonent lool mu jàngale mu nekk ci ay phrase yo xam yu leer nañ la ñom ñëw ñu ni namuñ ci li wax deug yàlla loolu tuumal li nga xamanteni moy sharia la kon dafa melni ne ay sa dafa ñëw ngir tabil ci nit ñi li nga xamanteni moy ay leunt leunt wala ci ay réer wala yu ni mel motax docteur bu ni fa ala muqtada hal haula maqalihim kon ñi li ñuy wax limi muy wund rek moy kon bàyyi woon nit ñi kaana tarku naas bila nusus anfa lahum kon bàyyi woon nit ñi ba ñu yónni yonent mu ñëw leeral alquran bi wala nangam nangam nee ñoom li ngay déggee seen wax mooy bàyyi woon leen noonu mooy li gën parce que bu fekkee ne yàlla dafa yónni yonent mu ñëw jàngale wax dëgg yàlla te li mu jàngale namuñ ci loolu leen lañ ci nam la chaque ni loolu problème la moo tax ibnu kay wax ni in kaana al fi ma yaqulu haulaay nufaat nee na ñii nga xamante ne ñooy dàq tey melokaanu yàlla yi bu fekkee li ñuy wax dafa nekk dëgg te li ñuy wax loolu am du deug mais bu fekke li ñu wax dafa nek deug ba pare mu wuté li nek alquran sunna wuté kalam al salafu saalih min qurun thalath al mufaddala wuté neen doo ko fekk ci ben waxu ben imam ci ay may nga xam dañ leen di roy doo ko fekk ci alquran doo ko fekk ci sunna doo ko fekk ci salaf waxu salaf salih wal aima yujad dal mu wal aima mu yujad dal ala khilaf al haqq indahum bal li am moy la ngay fekk ci borom xam xami moy lu wuté ñom li ñi wax قلنا إما نصا أو ظاهرا بل دال عندهم على الكفر والضلال لازم من ذلك لوازم باطلة كون لول لا شكني وفكيني وفكين دانيو فك ньо خامتن دانيو فك القران سنة بولير ناني ньо اندي لنين لهم خام دافو ووتيك لول تا دوكو فك بن وخ بن امام دو فك سي القران دو سنة نينا لول لا تي كون اي مبير لا يو خامتن اي نين لا دكتور موني قلت ما وخ باتاي نينغ سي باج نيميرو 32 موني ماني ليس هناك ادل على ذلك من قول رازي لي گنا تكتل لول ماي وخو رازي xam ngeen razi bokkoon na ci li nga xam ne al mutakallimun waaw razi am na ñu tuddi al qanun kulli moom da doon jiital xel ci texte راجل الله من لما ثبت بالدليل أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجهة والجسمية وجب علينا أن نضع لهذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار محملا صحيحا لئلا يصير يصير ذلك سببا للطعن فيها نينا بو فك يا دانيو فك اي تكس يو خامتيني بروم سبحانه وتعالى داف سيتال بوبام ci li nga xamante ne mooy jiha wala jismiya loolu ay ay ay ay phrase la yoo xamante ni wala ay terme yoo xam ne ñoo ko utilisé la chacun loolu dafa wute quran mooy bu ñuy naf ñoom dañuy def naf yu li nga xamante ne mooy al al mufassal yàlla du nangam dafa dàqal boppam nangam dafa dàqal boppam nangam dafa dàqal boppam jismiya te loolu lépp quran saxaru ko quran lim saxal mooy laysa ka mithli shay borom bi dara melu li moom mooy an nafyul mujmal bu ñu ñëw nag li nga def al al mufassal هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن لول يلا اسماء الصفات لا لي نبغي واخ نينا نيوم الرازي من نيوم بو نفكي شي القران الكريم تكست يوني ميل فاو ني جيم كو خول اب ديغين بو خامتيني بو وير لا شي نيوم بو كو ديفه باسكو ني باغي لان دادي تام كريتيك شي القران الكريم لولو بروبليم لا موتا رازي شي بوبو موم دا فاني بو فكي القران دا فا ووتي تكست شريعه دا فا ووتي خيل بو بوبا خيل لا ني جيتال باسكو جيتال ليغا خامتيني موي تكست نينا لول دويدال خيل لا تا خيل موي cosaan bi nga xamante ne ci la ñuy déggee charia wala iyaadu billah lii mooy waxam arrazi ñu tudd alqanun alkulli docteur mu ni ba tey wala min kalaami saawi kalaami saawi nee na boo ko dégloo tamit dafa ne li anna al axda bi dawahir kitab wa sunna min usuli kufr ñoom gis nañu sax ki sukkandiku ci alquran ak sunna ci li feeñ nee na loolu dafa bokk ci cosaani kéefar wala iyaadu billah yàlla na yàlla musal ci fitna kon loolu mooy li nga xamante ne mooy tënk bi aju ci li nga xamante ne mooy ñaareel poñ bi kon ñaareel poñ bi li muy wax mooy ki nga xamante ni dafa porter li nga xamante mooy prix mu bon kooku waxam li muy wund mooy ci texte charia yi wax dëgg yàlla am ci loo xamante ne neen la ñetteel poñ bi ba tey ñu ngi ci page numéro 33 mu ne at tawilu fasid laazimu ittihamu charia bi kitmaan al xaq wa adam nusul xalq prix mu bon li nga xamante ne moom lañ ciy déggee mooy tuumaal charia dafa nëbb dëgg naam dafa nëbb dëgg loolu naka la amee parce que yàlla subhanahu wa taala mi yónni yonent bi mu ñëw leeral quran ji mu leer nañ bam ne ko al yawma akmaltu lakum dinakum laataa loolu mu ne ko yaa ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafal fama ballagta risalata jottalil li nga xamante ne moom lañ wàccee ci yow te kuy jottali yaa nag la ngay jottali dafa am ay melokaan yu dayee ci yow mooy lan mooy da ngay am xam-xam bu mat sëkk am fasaxa gu mat sëkk waaye am leeral goo xamante ne gu mat sëkk la kookum daje ci yow wax dëgg yàlla la nga leeral kon dafa leer nañ léegi nag bu fekkee loolu lépp am na ba yàlla ñëw garanti lu yonente bi ni ko al yawma akmaltu lakum dinakum ñoom ñoo ñu ne déedéet namuñ ci loolu lépp ba tax na tey sa boo xoolee ci sufiyanke yi da ngay ñëw wax ci charia lu leen naa ñu la déet loolu ci li feeñ la yéena ko déggee noonu ñun déggee ko noonu parce que xaqiqa bi dafa am ay mbóot daf ci am wala iyaadu billah kon ñoom dañoo bëgg mabbu charia moo tax am na ñu tuddee at tafsirul ishaari indom ji ñoon nañ ko boo demee jawahirul maani bu ali harazim ahmed tidiane moom dafa gëm soufiane yi din ma général at tafsirul ishaari mooy ab aaya boo bu ñu wax rek mën nañ ci déggee ci juñ ci junju lenn loo xamante ni salaf saa déggee wuñ ko ci تلو دنا نيو نينت البوين بي يعلمني يا يعلمني يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله يعني گم يالا رغال لين يالا وابتغوا اليه الوسيله الوسيله تين ساك وسيله الوسيله ابن ابن كثير نتل دبو بروم خام خام تفسير يب لينتي نام موي بيب يون بو خامتني بو يالا يونال لا بولاي جيجل بروم بي نيوم يون وسيله بو بن تفسير الاشاري بريمو بون ki nga xamante mooy prime bon kooku daa tuumaal sharia parce que yàlla yónna yonent bi mu jotal mu ne ko al yawma akmaltu lakum dinakum ñoom ñoo ñu ne namuñ ci loolu loolu la chaque ni lu doy waar la kon kon loolu mooy li nga xamante mooy ñetteelu point bi ci tënk ngir audio bañ a gudd ñeenteelu point bu ne anna tawil fasid i'radun an nusus al wahyi kama fahima salaf salih lu leer nañ parce que as-salafu salih li ñu déggee ci texte yi ba yàlla ni ñoom seen dégg-dégg ci diine lay la fa in amanu bi mithli ma amantum bi faqad ihtadaw iman sax la wax gëm yàlla pour ñu mëna gëm yàlla ñun pour ñu rek rek faaw ñu gëm comme ñom ñu gëmé yaw nga ñëw nga ni dedet li liñ ci nam moy leen mo tax dama ne bépp kat bépp tapale kat bokale kat sax mëna tetali ko ci alcorane ni ci ay bidam wala ay bokale mais lañ koy laaj moy ndax salaf salih liñ ci déggee wala dedet mo tax fahmu salaf lu mënta ñak la buñ ko mabee rek mab nañ dina ci fahmu salaf lu mën ta ñak la motax yàlla mu ne man yushaqi rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساد مصيرا كون بروم بي دافا تكو تكو نيغا خامتاني دنج في واتي يون يون بي ديم دي توب لنين واتي في يون واي گم ني تاني جيتو موي صحابه تكو نلين جهنم مره دكتور مني لان من لم يتبع السلف رحمه الله عليهم وقال في الصفات الوارده في الكتاب والسنه قولا من تلقاء نفسه لم يسبق اليه السلف فقد احدث في الدين ابتدع نعم كن ibnu qudama danaka waxam jojo la tuxal ni kep ko xam dafa top lu dul yoonu salaf ni top benen yoon budul dul yoonu salaf ci melokanu borom bi subhanahu wa taala li nga xam dafa rot ci alquran sunu mu ko fi ñuk dem top len lo xamante ci bànneexu bakkanam la te kenn jitu ko ci koku la shakka ni sos na ci diina ci yàlla ci yàlla musal mu ne wa manhaju salaf fi taamul maa nusus charia manhajun waadixun jali kon as-salaf salih niñ doon jëfante jëflante ak tek charia lu leer nañ la moy jaar fa leen yonent sam jaaro duñ ci dolli di ci jiital seen i xel wala seen bànneex bakkan comme tey dañ ko xamee ci kuréel yi nga xam ne ñu sànku lañ kon loolu mooy li nga xamante ni moo wundu ñeenteelu point bi kon ñëw di indi prix mu bon bàyyi fi la fi salafu saalih déggee woon loolu la chaka ni euh, génn ci li nga xamante ni mooy ci cadre la boo xamante ni mu ñu ŋàññi la moo tax borom bi tëkku tëkku leen ci li nga xamante ne mooy jahannam indi exemple yu bëri ku ci liir tamit di ci gën am ay faram-fàcc juróomeelu poñ bi ñu jeexalee ngir tënk rek anna tawil fas aslu kullu bidaatin zahara fi l'islam bépp bidaa boo gis mu feeñ ci l'islam rek prime bon moo ko indi نعم من لما كان الأصول بدعة وأسسها كلها ترجع إلى مخالفة النص وعدم الالتزام بمقتضى وكان التأويل الباطل أكبر عقبة ودعها المبتدع مبتدعة على طريق العمل بالنصوص الشرعية كان بديهيا أن يكون التأويل هو أساس كل بناء الظهر في الإسلام نعم إن وحي ابن قيم كتير بأم صلى بأم الكافر الشافي مينونية مدير بأم صلى خمتن أي بويم لا كي خليل هراس رحمه الله تعالى كي شرع كون موني لغا خمتن موي كسان بدك كسان بدا لبري دلو تي لغا خمتن موي ووتي تكس أك تنكو تي لغا خمتن تكسي موم تتالي mu ne fekkee loo am na kon li nga xamante ne mooy prix mu bon kon dafa nekk pakk bi gën a mag boo xamante ni al mubtadi a teg nañ ko ngir di jëf jëflanteeg li nga xamante ne mooy teg sharia yi loolu li ci bëgg wax mooy li am solo mooy tey bépp bidaakat bépp bidaakat day jéem a teg ay règle ak ay qawaid yoo xamante ni moom moo ko créé boppam bëgg cee déggee li nga xamante mooy sharia loolu problème la maam sharia moom mooy delluwaay bi déedéet mais ñoom yoo xamante ni ci la ñuy delloo pour dégg ci xam ne mooy teg فلول بروبليم لا بروبليم بري ري ري مرغم وذلك لان كل مبتدع يسعى الى البحث عن مستند له في النصوص واذا لم يظهر بدليل او شبهه يغتر بها المغرور والمخدوعون من اللجا الى لي اعناق النصوص بفكينك من مبتدع بي تجنا اي بريغلام غير دغي شي ليغا خا تاكسي واي ين ساي مودن نك با امول ليغا خا مانتيني موي ولا لنت لنت بو خا مانتيني ني وورو شي موم من نانتي وورو mu ne boobaa li muy def mooy mu commencé nag lem li nga xamante ne mooy taxi yi utal ko beneen print wala iyaadu billah te loolu tey mooy li nga xamante ni lu siiw la ci li nga xamante ne mooy almubtadia kon li nga xamante mooy prime bon mooy bépp cosaanu bépp biddaa boo xamante ne feeñ rek prime bon moo ko waral parce que texte dafa ñëw leer nañ yàlla ni lii ak lii ak lii ñoom ñoo ñu dee namuñ ci loolu dafa am leen luñ ci nam tàqale diina ji tuddee ko al xaqiqa ak sharia sharia mooy li feeñ al xaqiqa mooy الظاهر والباطن نعم الظاهر والباطن الأملة من الظاهر ميلان الباطن ميلان يعني من الظاهر من الشارع الباطن من بودي من لول يونت سام خموكون من لي جانغلو ليغا خام بوكو خامون تاي فان لاكو جانغلي نانيو كو واخ كون بريم بون لا شك ني تاي ليپ لو ياق موكو ياق يالا نتي يالا مسل يالا ديغلو ني خامي القران والسنه كون ني يم فو ان شاء الله هذا والله تعالى على علم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته